mbokki téléspectateur de la 2STV maa ngi leen di nuyu tey ñoo ngi fii ci hippodrome Ndiaw Macodou Diop nekk fii ci Thiès muy quatrième journée bu comité national de gestion des courses hippiques du Sénégal muy journée bi nga xam ne nag dañ ko jagleel la loterie nationale sénégalaise muy bés boo xam ne bés bu rëy rëy la DG de la LONASE moom la ñu jagleel li nga xam ne moom mooy bésu tey bi boo xoolee kaw tribune bi tey gis ngeen ñi nga xam ne mooy association femmes yi nga xam ne ñoo nekk loterie national sénégalaise waaye boo xoolee ci kaw nga gis téléspectateurs yi ñëw en direct lañ leen koy defal si seen première chaîne privée du Sénégal mooy la la 2STV euh, tey nag nekk na bés boo xam ne bés bu rëy rëy la muy huitième édition bu Grand Prix Amadou Samba Kane muy maire Hounaré muy nit koo xam ne bi mu ñëwee ci loterie national sénégalaise gis nañ ay avancé yu mag a mag yoo xam ne def na ko ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu entreprise boobu nga xam ne mooy la LONASE tey daal xaali euh, tey daal euh, gis na tey euh, dabba bës bi ni mu demee tey am nañu juróomi course au programme mool yi nga xam ne ñoo am ñetti at ñooy daw course bu njëkk bi gis nga daw nañ ba teer ki nga xam ne mooy jël premier mooy Cotonou 2 bu Moustapha Bawo ñaareelu course bi muy PDA yi muy poulain de trois ans yi ñoom ñooy waaj pour daw ñetteelu course bi mu nekk groupe trois bi ñeenteelu course bi mu nekk nag grand prix bi muy groupe 1 bi moom la jagleel ki nga xam ne mooy Amadou Samba Kane DG de la LONASE waaye juróomeelu course bi mu nekk nag groupe bi ñoom ñooy tëj li nga xam ne moom mooy course tey bi tey daal ñoo ngi fii en direct sur la première chaîne privée du Sénégal la 2STV ànd ak yéen ci quatrième journée bu comité national de gestion des courses hippiques du Sénégal muy journée de la loterie nationale sénégalaise. donc jigéen Thiès qui abrite la cinquième journée dédiée à la loterie nationale sénégalaise Ousseynou di ko jaajëfal bu baax un grand Merci mes confrères, c'est la quatrième journée. La quatrième journée. C'est la quatrième journée dédiée à la Lonase di kontaan bu baax a si Dame moom sama xarit la sama waay la affaire bi jàppandi na merci Omar jaajëf Dame. donc ñoom dañuy xaarandi en attendant la deuxième course du côté des poulains de deux ans ça sera. dans un court instant bien sûr délégation de la LONASE. En attendant un peu de musique, Youssou Ndour, l'international. Sapeur-pompier. kontaan bu baax a baax ci Pape Diassé wax tamit bonne saison hippique Pape li nga xam ne moo jëm ci wàllu organisation bi waaye di wax ne Daba tey ñoo ngi waajal li nga xam ne moom mooy euh, ñaareelu course bi muy les PDA les poulains de deux ñu nekk onze partants war a daw distance su mille deux cent mètres xam nga nek nekk na course boo xam ne course bu ubbeeku la ndax Sali Aïda euh, bu Mouhamadou Lamine Diop dafa def si course de rentrée ki nga xam ne mooy Amignan dafa def si course de rentrée Delphine dafa def si course de rentrée waaye Mamadou Samba première journée moo jël quatrième ki nga xam ne mooy ay Aïda Nafi deuxième journée moo jël deuxième ki nga xam ne mooy Poulmera daw na première journée noo classé ki nga xam ne mooy Jaxeer Ndour daw na première journée jël sixième place waaye ki nga xam ne moo mooy Rayane daw na deuxième journée jël premier ndax day confirmé tey Rayane moo yor kazaak bu xonq bi waaw moo yor kazaak bu xonq bi Rayane Euh, poulain de deux ans la moom moo raw li nga xam ne mooy deuxième journée bi waaye bébé ndey moom deuxième journée non classé ki nga xam ne mooy di Digel dafa def ci course de rentrée waaye ki nga xam ne mooy numéro 11 bi di Linguère Tening dafa def ci li nga xam ne mooy course de rentrée ñu nekk 11 partants war a daw distance su 1200 mètres muy journée de la loterie nationale sénégalaise ki nga xam ne mooy DG de la LONASE mooy amadu Samba Kane tey muy huitième édition journée de la loterie nationale sénégalaise fas yi jóge nañ ci paddock bi ñëw nañ ci li nga xam ne mooy rond présentation bi xam naa dañuy xaar tuuti rek le général waaw fas bi nga xam ne moom mooy bébé ndey bébé ndey bu Moustapha Hachem moom la ñu jàkkaarlool nii ki ko war mooy Alassane Seck yor kazak bu orange numéro 3 bii nga jàkkaarool moom mooy Delphinian Delphinian Idrissa moo ko moom mu war kazak euh, vert blanc mu nekk course boo xam ne course bu rëy rëy la nekk fii ci hippodrome Ndiawma Koddu Diop fii ci Thiès deuxième course réservée au PDA pour une distance de 1200 numéro Sali Aïda propriétaire Mouhamadou Lamine Diop jockey Adama Gueye corde numéro numéro 2 Amignan propriétaire Amadou Kala Diakhaté jockey Mbaye Diène Diallo corde numéro 6 numéro 3 Delphignon propriétaire Idrissa Niang jockey Saliou Seck corde numéro Numéro 4, Mamadou Samba. Propriétaire, Abdoulaye Aliouka. Joké Mortongan, corde numéro 10. Numéro 5, Nafi. Propriétaire, Ali Tchao. Joké Serif Badian, corde numéro 8. Numéro 6, Poulmera. Propriétaire, Sidindao. Joké Yamargaï, corde numéro 1. Numéro 7, Jaxeer Ndour propriétaire Ibrahima Seck jockey Adama Dione corde numéro numéro 8 Rayan propriétaire Ale Diagne jockey Cheikh Sall corde numéro numéro 9 Bébé Ndeye propriétaire Moustapha Hachem jockey Alassane Seck corde numéro 7 numéro 10 Dikel propriétaire Mambay Diop Joké Fallou Diop corde numéro 4 numéro 11 Linguère Tening propriétaire Babacar Mbagnick Fall Joké Salif Kobar corde numéro 11 11 pour une distance de mètres que le meilleur gagne dans le fair play et dans un esprit chevaleresque waaw euh, El Hadj Omar gis nga tey course bi muy course bi nga xam ne mooy mool yi nga xam ne ñoo am ñaari at ñoom tey dañoo am ay gan ndax ki nga xam ne moom mooy Sali Aïda ki nga xam ne mooy Ami Niang ki moo nga ki nga xam ne mooy Delphi Niang ki nga xam ne moom mooy euh, Dikel ak euh, Linguère Tening ñoom ñëpp dañu def si course de rentrée waaye ki leen raw deuxième journée mooy Rayane mu nekk course boo xam ne course bu ubbeeku la tey ci hippodrome Ndiaw Macodou Diop muy quatrième journée bu comité national de gestion des courses hippiques waaye di huitième édition Amadou Samba Kane directeur général de la LONASE. ah jërëjëf Amadou Diallo xanaa gërëm la xanaa sant la ci li nga xam ne nii mooy liggéey bu rafet bi nga xam ne nii yaa ngi koy mën a ci li nga xam ne mooy 2STV ci li nga xam ne mooy fasu naaru góor ak li nga xam ne moo ko wax nga dëgg de waaye nu gërëm nag le président à l'organisation muy Bibo Serif si moom i tamit nu gërëm ko bu baax ci li nga xam ne mooy engagement am ak li nga xam ne moom i tamit digganteem ak li nga xam ne moom ci boppam mooy li nga xam ne mooy média bi doo ngi gërëm bi mu seetlu si bu baax xale la boo xam ne engagement la am waaye am na yaakaar fu mu war a jóbbu course yi noo ngi ñaan yàlla àggale ko foofu gërëm nag le président national Alaaji Cheikh Tidiane Niang waaye nag bi ñu la gërëmee ba paramit du gërëm nag ki nga xam ne mooy Alaaji Ndiaye moom itamit jël ki nga xam ne jël na ko loxoom teg ko ci li nga xam ne mooy réew mi ak lépp lu ko war a jëmee kanam rek mu teg ko fa moo tax tey ñoo ngi ci quatrième journée mu nekk bés boo xam ne bésu mag la ñu jagleel ko nag doome Amadou Onaare boobu di Amadou Samba Kane nee naa la boo ne muy dem mu laaj fan la jëm tam bëgg-bëggam. yéenee moom Amadou Samba Kane mooy lu jëmee Sénégal kanam rek muy bëgg-bëggam kooku doon koo gërëm bu baax di ko sant waaye Amadou jàllo noo ngi jëm ci rawante mu mag boo xam ne foo yaakaar ne ndam ni fa la jëm rek ndam li mën naa jëm feneen Amadou jàllo waaye daal ma bàyyi la nga wéy ba ca kanam waaw fas yaa ngi ci starting block yi ñu nekk 11 partants war a daw distance su 1200 mètres mu nekk course boo xam ne course bu ubbeeku la ñu nekk fii ak ki nga xam ne moom mooy Bibo Chérif Sy di vice président chargé de l'organisation tey ñoo ngi ci ñeenteelu bëccëg tey yow boo doon def euh, euh, bilan bu ndaw bilan à mi parcours lan ngay wax ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu organisation bi ak amélioration yi nga xam ne yéen yéen a ngi koy xalaat pour saison 2019 bi. waaw jërëjëf euh, Diallo maa ngi lay di nuyu téléspectateurs yëpp vraiment bi course au léegi ñëpp ñu ngi si joué seen partition. Euh, amateurs yi bëri nañu euh, borom fas yi tamit euh, li ñuy dawal si fas bëri na. vraiment ça se passe très bien depuis ouverture beeg léegi course yi ñu ngi déroulé wul normalement donc sant yàlla bu baax a baax et puis di féliciter 2STV seen liggéey rafet na tey si journée Amadou Samba Kane et di profiter si occasion bi pour remercier Amadou Samba parce que course soxla na ay direct donc su ñëwee tey jël journée investir si direct bi def mobilisation bu toll nii euh, mënuñu lu dul rafetlu ko. naka nga gisee lancement PMI local bi nga xam ne DG da ko bëgg a lancé pour ñuy dawal ci suñuy fas xool nag fas yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew ñuy dawal ci fas yi nga xam ne ñoo jujoo fii si Sénégal. waaw PMI local bi c'est très important parce que soo jëlee àdduna bi yëpp fépp fu course développé rek PMI moo ko dawal. donc euh, euh, vision Amadou Samba euh, dafa yaatu loolu lañ doon xaar si moom pour mu pour mu indi ay innovation ya nga xamante ne tey dina yokk course bi fii si Sénégal parce que tey bis bu ñu commencé def PMI local yaakaar naa lu bëri si financement dootuñu ko jooy incha allahu rabi. waaw kooku mooy Bibo Chérif si di vice président chargé de l' organisation Daba fas yaa ngi ci starting block yi ñu nekk 11 partants. war a daw distance su 1200 mètres muy course boo xam ne am na ay gan yoo xam ne dañoo ñëw seet si ci course bi tey dina nekk course boo xam ne du yomb ndax yii mooy poulain deux ans yii nga gis nii ñoom ñooy pour euh, euh, le vitrine de l' amélioration de la race chevaline au Sénégal ndax Amadou Samba liggéey na liggéey bu am solo tey bu ñu mënee daw ci li nga xam ne mooy starting block yi muy box yi yàlla ak la. tey bu ñu mënee am ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay photo finish yàlla ak Amadou Samba Kane la mu nekk loo xam ne ay jéego la formation jockey yi def na ci lu am solo yóbbu xale yi France ñu jàng war gi nga xam ne mooy monte en suspension bi mu nekk lu am solo la tey nekk na course boo xam ne course bu rëy rëy la tey nag ñu nekk fii ci hippodrome Ndiawma Koddu Diop ñu am cinq chevaux am cinq courses première course bi xam ngeen ne. ki ko nga xam ne moo ko raw mooy Cotonou 2 bu Moustapha Bao moo ko raw euh, deuxième course bi moo nekk li nga xam ne moom mooy PDA yi ñu nekk nag onze partants war a daw distance su mille deux cent mètres euh, tey ma nekk ak sama xarit boo xam ne ñoo dalandoo ba fële nga xam ne mooy rajo Jokko FM nekk 87 point 7 nekk Tëngéej muy xaasa xaasa naka nga gisee initiative bu rafet bi nga xam ne euh, LONASE jël na ko bëgg dawal. Euh, euh, PMI local ci suñu hippodrome xam ngeen si diggante loterie nationale sénégalaise ak li nga xam ne bii moom mooy le comité de gestion des courses ñoom ay partenaires privilégiés lañ comme disait l'autre chaque fois rek li nga xam ne bii moom mooy l'ONAS dafay gunge li nga xam ne bii tamit moom la loterie nationale sénégalaise donc ñoom ñaar kenn mënul dem bàyyi seen morom donc Amadou Samba Kane directeur général ñu koy ndokkeel si bés bi Macky Sall pour mu amaat un deuxième mandat looloo tax nag mu daal di bàyyi yitteem yëpp li nga xam ne bii doon nañ ko def a travers euh, le pays moom loolu yëpp mu daal koy bàyyi ñëw nag ne moom dafay organiser une journée boo xam ne bii son excellence monsieur Macky Sall la ko dijjee donc un grand merci à Amadou Samba Kane le directeur général de la loterie nationale sénégalaise. waaw xaasa seen fas yaa ngi ci départ bi ñu nekk 11 partants war a daw distance su xam nga ñoo ngi nuyu euh, madame Rokhaya madame Rokhaya madame Rokhaya Diallo jiite ko muy madame Cissé di nuyu nag madame Diop sama jigéen euh, di nuyu nag euh, ki nga xam ne mooy Soxna Mbène euh, di secrétaire géné secrétaire secrétaire général Mamadou Gueye di leen wax nag ne tey daal boo ñëwee Thiès sa yaram day daw ndax association bi nga xam ne mooy AFLO ñëw nañu les femmes d'entreprise ñëw nañu nga xam ne mooy secrétaire ñi nga xam ne ñooy secrétaire u DG yi nekk à la LONASE ñoom ñëpp ñëw nañu ñuy xaar l'arrivée euh, du euh, du DG de la LONASE Amadou Samba Kane xam naa ne léegi mu ñëw di wax ne nag ñeenteelu course bi muy groupe 1 bi mooy crème course le cracks adultes moom lañ ko jagleel muy DG de la LONASE muy le groupe 1 muy groupe boo xam ne euh, kenn mënu leen a kii waaye di wax ne ñi nga xam ne ñooy poulain de deux ans yi li tax mu am solo mooy jëni jëli ay étalon bitim réew indi leen fii boole leen ak suñu wajan yi suñu fas yi nga xam ne ñoo daan daw course te dawatuñu course ñu yóbbu leen yi ñu indi leen boole leen ak ñoom tey ñoo jur deux ans yi nga xam ne ñooy daw nii boo xoolee ci biir deux ans yi am na ay trois quarts de cent am na ay sept huitième am na ay quinze seizième de am na ay trente et un deuxième de cent ay wajan la yoo xam ne ñoo nekk fii ci Sénégal doon daw si suñu course yi tey ñu jëlee ay étalon bitim réew par le biais du président de la république ak ara privé yi nga xam ne ñu ngi liggéey liggéey bu am solo tey ñu indi wajan yi wajan yi mën a jur doom yi nga xam ne ñoo nekk nii xam ne bu ëllëgee ñii mën nañ ci jouer li nga xam ne mooy PMI local ndax tey 11 partants lañu te en France 11 partants dañ fay daw am na 16 partant yu daw sànq am na aussi groupe 1 bi euh, ñun ñu nekk 15 partants mu nekk loo xam ne mën nañ ci jouer PMI lépp nag ay toog xalaat la fexe ut lu jëm ci wàllu infrastructure ndax tey président bi nga xam ne mooy Macky Sall defar na Dakar Arena defar na arène bi nga xam ne mooy arène nu léegi nag li ko dese mooy defar hippodrome national pour turfistes yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal ak propriétaires yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal ñu am foo xam ne dañ fay lëkkaloo ak la LONASE pour dawal li nga xam ne moom mooy course waaw Daba Daba Daba fas yi ñu ngi ci starting block yi lii mooy PDA yi ñooy vitrine de l' amélioration de la race chevaline au Sénégal ndax ay étalon la ñu jëlee bitim réew boole kook suñu wajan yi nga xam ne ñoo nekk fii ñu am fas yi nga xam ne mooy poulain de deux ans yi ak poulain de trois ans yi mu nekk loo xam ne lu am solo la ci réewum Sénégal ñuy wax nag ne tey. ñeenteelu journée bu comité national de gestion des courses hippiques la ñu tuddee ko nag ki nga xam ne mooy la loterie nationale sénégalaise muy nekk journée boo xam ne euh, comité national de gestion des courses hippiques ñoom ñoo ñoo organisé grand prix de la LONASE édition 2019 sous la présidence d'honneur de son excellence monsieur Macky Sall président de la République du Sénégal et sous la présidence effective de M. Amadou Sambakan, directeur général de la LONAS, dimanche 10 février 2019 fii ci hippodrome Ndiaw du Diop fii ci Thiès ñu ñëw nag nekk ci ñaareelu course bi waaw deuxième course bi nag xam nga ñi ngi xaar ñi nga xam ne ñooy commissaire stataire bi commissaire stataire bi bu baaxee rek ñu joxe li nga xam ne mooy départ bi ndax xam ngeen drapeau bu verte bi mooy valider li nga xam ne mooy départu fas yi drapeau bu rouge bi bu taxawee mooy euh, départ bi baaxul ñuy wax ne tam fas yi euh, poto bu rouge ba la ngay gis fas yi feeg weesuwuñu ko kenn mënul euh, doubler sa moroom ndax règlement bi da koy bañ mu nekk loo xam ne lu am solo la ci wàllu réglementation li nga xam ne moo jëm ci wàllu course waaw ñu seen commissaire stataire bi ñu ngi ci dernier réglage yi ñu ngi ci dernier réglage yi buy jekk rek ñuy ubbi box yi buy jekk rek ñuy ubbi box yi bu ñuy ubbi box yi rek muy rafet mu nekk course boo xam ne course bu rëy a rëy la muy ñaareelu bëccëg muy ñeenteelu bëccëg bu comité national de gestion des courses hippiques du sénegal ma nekk ak nag samay confrère kii sama jarbaat la muy Cheikh Ndiaye Cheikh naka nga jàngatee li nga xam ne moom mooy course mool yi nga xam ne ñoo am ñaari at ñii ñooy vitrine de l'amélioration de la race dañu jëli ay wajan dañu jëli ay étalon bitim réew boole leen ak suñu wajan yi fii ñu mën a am fas yi naka nga gisee rawoon bi tey ndax Rayane moo leen rawoon deuxième journée. dëgg la Amadou Diallo sama ndijaay Rayane moo leen rawoon deuxième journée waaye départ na Amadou Diallo. waaw jóg nañu génn nañ ci starting block génn nañu ci starting block yi Sali aada Sali aada waaw Sali Ada ah, Sali Ada numéro 1 moo génn Sali Ada moo génn ci kanam waaye ki nga xam ne moo ko sëkkatal ki ko sëkkatal mooy fas woowu nga xam ne Sali Ada Amignan Sali Ada Amignan Delphinian Delphinia waaw Rayane Rayane Rayane mi ngi nekk en cinquième position Linguère Tening moo ci kanam Linguère Tening moo nekk ci kanam waaye Rayane dugg si na ci seen biir dawal nañu Rayane mu dugg ci seen biir Rayane bu ale Rayane bu ale jaan ñëw na waaye Linguère Tening moo nekk ci kanam ba tey Rayane ak Linguère Tening Rayane te Tening moo génn Rayane moo nekk en deuxième position à la jigéen ñi. wax nga dëgg Diallo ndeysaan nga gis xel yi ñu daw Rayane génn na lu bare bari nga xam ne dégg nga maam tubaar fa kàlla la ñu daw Diallo boo ko gisee sa yaram daw mool yi dama ni 200 yi ñoo dàq daw sax 300 yi Diallo. waaw Rayane a nekk ci kanam jockey bi ko war mooy Cheikh Sall Rayane moo nekk ci kanam jockey bi ko war mooy Cheikh Sall. Rayane moo nekk ci kanam Rayane premier numéro 8 Rayane deuxième numéro 11 Linguère Tening troisième numéro 4 Mamadou Samba cinquième numéro 3 numéro 3 Delphinian cinquième numéro 3 Delphinian waaw Rayane bi mooy ñaareelu réalisation Rayane am ko Rayane moo raw deuxième journée moo raw tey Rayane mooy wane ne moom mooy favori ci ñi nga xam ne ñooy moolu deux ans yi. ak confirmé na li mu defoon de confirmé na li mu defoon de maître Souleymane Diagne nag moo ko moom kenn ku ci nekk xam na ne yàgg na ci course ànd ak rakam aale moom itamit tey bu ko indee mu daw ni nga xam ne noonu la day woon du ñu mën a def lu may rafetlu ko waaye euh, euh, euh, Amadou Diallo noo ngi lay gërëm dafa mel ne Amadou Samba Kane mi ngi waaj a dugg si moom i tamit waaye daal moo li daw nañu ba teer ñu yi la rek nga wéy. waaw Rayane moo jiitu ci kanam Rayane bu aale Diagne moo jiitu ci kanam. mu nekk rawante boo xam ne rawante bu rëy a la fii ci hippodrome ñëw ma ko du jóg fii ci Thiès tey Rayane euh, bu Ale Diagne moom moo raw ñu aw euh, bu Ale jaañ moo raw Ale Diagne moo nekk écurie la Saint-Louisienne Ale Diagne moo nekk écurie la Saint-Louisienne ñoo ngi fii ak ki nga xam ne mooy maître Souleymane Diagne Vous êtes en direct euh, sur la 2STV la première chaîne privée du Sénégal euh, tey Rawaan dafa mel ni dafa confirmé ndax moo rawoon deuxième journée ñu ñëw quatrième journée journée de la LONASE mu ñëw confirmé ndax bi ñuy am tàllalu 500 mètres yi moo nekkoon en sixième position waaye bi ñuy tourné ci 800 mètres yi mujj ñëw ci kanam tey ndam li lan la def ci yow maître Diagne. mais satisfaction bon am mbégte mu rëy mais di am ci mbégte rek ndax euh, dañu amoon ay concurrents. mën nañu bég mais du ñu exubérant du ñu romb euh, comportement bu ñu warul am euh, satisfait nag parce que kuy dawal raw nga bëgg raw nañu ñu ngi sant yàlla mais ñu ngi bàyyi xel bu baax ñi ñu àndaloon doon ay concurrent mu nekk adversité wu une minute euh, trente une minute vingt et quelque parce que bëgg naa rayaan tey def record ci temps wu deux ans yi mais encore une fois dañuy am mbégte mais mbégte mi day modéré ndax ñi ñu àndal ñoo tax buñ ñu tuddee ñi ñu ñi ñu raw ñoo tax ñu tudd ñu. waaw maître euh, yow gis nañ ne yow ku gëm li nga xam ne mooy amélioration génétique nga Rayane yaa ko juddul si sa kër euh, mu nekk trois quarts de euh, am na yeneen moroomam yu nekk ci kër ga tey loolu lan ngay wax ci élevage équin bi tey. mais élevage équin doon na lu métti nag doon na lu metti mais doon lu passionnant ndax. ñun man ak samay rakk c'est une passion qu'on a héritée de notre père mu nekk loo xam ni daf ñu tënk daanaka euh, mais ñuy sant yàlla ndax élevage équin bare nañu koy def te amuñu réussite bi nga xam ni xëy na am nañ ko pourtant defaluñu yàlla lu tax mu may ñu li mu mayul ñeneen gi moo tax lépp luñ ci mën a dal muy naqar wala muy bànneex dañ koy delloo borom bi rek xam ni lu yëngu moom la. lan ngay wax nag écurie la Saint-Louisienne ñu xam ne yow ndar-ndar bu mag a mag nga. waaw gis nga Diallo man lu ma fëkk rek ndar laa ko yóbbu booy xool dama football nawetaan ci équipe bu ñuy wax stade de Pikine boo xoolee couleur rouge bulan bii tey maillot bi ma daan sol moo mel nii moo tax bi ma amee écurie war a dawali fas dama jël sama couleur écurie def ko ci couleur équipe nawetaan bi ma daan football. jërëjëf. Amadou Samba la le de la LONASE mi ngi ñëw avec une forte délégation mi ngi nii DG Amadou Samba mi ngi ñëw avec une forte délégation mi ngi nuyu ki nga xam ne mooy euh, vice-président muy Iba Collé Bao mu yor lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu finance mi ngi saafonteeg Iba Collé Bao ki nga xam ne mooy DG de la LONASE Amadou Samba Kane maire Amady Ounaré moo yegg si léegi ci tribune bi avec une forte délégation ki nga xam ne mooy président Cheikh ñaa moo ko gunge moo ko gunge président Cheikh Tidiane Niang moo ko gunge euh, tey Madiop Madiop euh, sama confrère la nekk TFM Madiop tey naka nga gisee li nga xam ne mooy huitième édition Grand Prix de la loterie nationale sénégalaise ci ayu Amadou Samba Kane. waaw jërëjëf Diallo ñu ngi lay nuyu baax a baax di nuyu téléspectateurs yi nga xamante ne ñu ngi seetaan ci 2STV en direct tey. ci grand prix bi nga xamante ni huitième édition tey comme ko waxee boo xam si ne boo demee ci agenda wu seen course bi da nga ko fa fekk waaye tey képp koo xam si ne euh, euh, entraîneur nga wala ngay jockey wala ngay borom fas wala ngay li nga xamante ni mooy amateur course bi ama grand prix bi bàyyi nga ci xel wala képp koo xam si ne sax reporter nga bàyyi nga xel ci grand prix bi nga xamante ni mooy grand prix Renaissance mu grand prix boo xam si ne su ñëwee ñi nga xamante ni tool fakal ñooy dund ci course bi kenn ku ne ci ndax kenn ku ne xam ne ni partenaire privilégié wu CNG course hippique moo tax seen seen grand prix nii rek lay mën a mu nekk huitième édition nekk tey gis nga bi bi nga xam ne nii ci la Amadou Samba ko dugg si àndanteeg délégation boo am solo àndanteeg jigéen LONASE yëpp mu nekk tey course boo xam si daal jàllo course bu réeré la ah, stade bi daal tey foo sànni laay rek mu tag ndax grand prix LONASE da tey ja Amadou waaw euh, délégation directeur de la LONASE direction DG euh, de la LONASE yegg si na léegi Euh, ànd ak ki nga xam ne mooy secrétaire général muy Mamadou muy Mamadou Gueye waaye maa ngi gis sama goro Seydou Mboup ci kaw maa ngi gis euh, Dash Babacar Ndiaye mi ngi ci kaw ñu ànd ak une forte délégation maa ngi gis nag ki nga xam ne mooy madame euh, Rokhaya Diallo di madame Cissé jiite li nga xam ne mooy aflo tey daal tey foo sànni mbattu mu tàkk fii nga xam ne mooy hippodrome Ndiaw ma Koddu Diop muy 28e journée de la loterie nationale sénégalaise maa ngi gis ki nga xam ne mooy El Hadji Malick di conseiller spécial chargé des relations extérieures di coordonnateur bi nga xam ne mooy coordonnateur euh, marketing ak communication à la LONASE tey daal mën nañu wax ne LONASE gi yëpp ñëw nañ maa ngi gis la conseillère madame Wane mi ngi ci kaw tribune bi maa ngi gis madame Diop nale ca wàll mu nekk bés boo xam ne bés bu rëy a rëy la président Cheikh Tidiane Niang ñëw tatagal ki nga xam ne moom mooy Amadou Samba Kane di DG de la LONASE ñëw nag ci bës bu rëy bi nga xam ne moom lañ ko tuddee mu ànd ak nag waa délégation loterie nationale sénégalaise bi yëpp. waaw euh, xam naa dañuy jël El Hadj Malick euh, El Hadj Malick euh, moom moo jiite marketing. ak communication yor relation internationale El Hadji Malick vous êtes en direct sur la première euh, télé privée du Sénégal la 2STV euh, tey ban impression ak ban yëg-yëg nga am. merci bien Diallo euh, kontante rek kontante bu bari parce que tey dañu jiital suñu directeur général ànd ak moom gunge ko ñu ñëw euh, ci grand prix Lonase bi. waaye li nga xam ni moo bees ci grand prix bi mooy dañu ñëw tey pour lancer li nga xam ni moom mooy PMU local PMI local nag boo ko déggee mooy ay prise de jeu yoo xam ni dañ koy def ci fasu suñu dëkk bi directeur général expliqué na ko sànq nee na euh, dafa am ay préalable yoo xam ni pour ñu mun a def PMI lo euh, PMI local bu performant il faut ñu régler problème mu hippodrome problème euh, régler aussi problème mu race chevaline et si yooyu yëpp directeur général am na si ndigalu président de la république pour que mandat bii di ñëw nga xam ni président de la république bu ko amee ci jàmm ak salaam. dañuy euh, Lonase dina dugal loxoom si defar ay hippodrome yoo xam ne day nekk hippodrome yi nga xam ni euh, comme ñu nekk France comme ñu nekk Maroc comme ñu nekk Afrique du Sud. fu mu nekk nii euh, course yu bëri boo gisee ñu koy def fu mu nekk nii prise de paris yi ma PMU ñu ngi koy def si fasu France yi waaye Lonase dafa bëgg loolu ñu inversé ko ñu koy def léegi si fasu Sénégal yi loolu xam nañ ñi pour ñu def ko nag il faut Lonase dugal loxoom bu baax a baax a baax si course yi. moo tax te ñu kontaan trop si ñëw fii ànd ak suñu directeur général mu ànd ak délégation bu mag euh, directeurs yi ñi ngi fii conseil yi ñi ngi fii parieurs yi sax ñi nga xam ne ñi ngi joué ñun ñi ngi fii tey Lonase kenn manqué wul ñëpp a ngi fii. waaw kooku mooy El Hadji mbay euh, Mbaye euh, di conseiller spécial du DG moom moo yor lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu marketing ak communication gis nga kàddu yi nga xam ne wax na ko dàbba ñu ñu wax ne tey daal bés bi rëy na. Euh, ñoo ngi fii ak Thiam mi nga xam ne moo ah El Hadji Thiam moo nag nekk fi nga xam ne mooy la LONASE euh, di jokkale mooy baj géwélu LONASE tey bés bi dafa ala daw mais tey lan ngay wax ci bés bu rëy ñu tuddee Amadou Samba Kane mais kase am contentement ak mbégte ci bés bi tey ni mu toll ku ne xam na ni LONASE def na bés bu ne waaye bés mel ni musta am li ko waral nag mooy ki ko woote le directeur général Amadou Samba Kane di jàmbaar di liggéeykat di jàppale Macky Sall tey boo gisee li mu organisé ak ñi ko dar tey xam ni fonk na bis bi ndax amical yi macha allah LONASE kenn desul amical des ñëw nañu ah ñi nga xam ne ñoo koy ci wàllu politique ñëw nañu bandeuse yi ñëw nañu kenn desul li waral loolu nag mooy leblewuñ dañuy fay bor ndax ki nga moom la yàlla teg ci bopp mu la directeur général Amadou Samba Kane lépp lu ko war ci lu baax def na ko bëgg nay bokkam jàppale nay bokkam waaye LONASE nga mu nekk tamit di fa bu jógee ñëpp jóg li mën a wax daal mooy bis am waaw kontaan nañ bu baax a baax a baax te dinañ jàppale LONASE dinañ jàppale course te ba mu ñëwee ba léegi lépp lu ko war ci course bi jàpp ko jàppale le président de la république Macky Sall pour falaat ko premier tour te loolu ci lay dox te incha allah yàlla loolu ndax boo gisee ko ànd ak moom tey ak li mu ak fa mu dëkk la fa def xam ne li mu bëgg yàlla dina ko defal directeur général Amadou Samba Kane daal mention spéciale ñetteelu course bi nag groupe 3 bi ñoo koy daw groupe 3 bi ñooy daw li nga xam ne mooy troisième course bi ñu nekk 14 partants war a daw distance su 2200 mètres waaw ñetteelu course bi ñi koy daw ñoom ñooy groupe 3 bi ñu nekk 14 partants war a daw distance su distance su 2200 mètres course la boo xam ne course bu ubbeeku la. ndax xam nga tempête tey dafa def si course de rentrée waaye journée bi nga xam ne mooy troisième journée bi ñu génn ko ki nga xam ne moo jëloon premier mooy président Cheikh bu Iba Kolle Bawo deuxième bi nekkoon Daaru Minam bu Omar Bawo Junior troisième bi nekkoon Rasoul bu Aliou Aliou Ley quatrième bi nekk Barakatou bu maître Moussa Mbacké cinquième bi nekk Wiri Junior bu Cheikh Mbacké Bawo loolu moo fi xewoon dimanche bi ñu génn waaye tey am na gan yu ñëw seet si ci li nga xam ne mooy ñetteelu course bi muy groupe 3 bi buñ ci jógee nag ñeenteelu course bi groupe 1 bi la muy grand prix bi nga xam ne moom lañ jagleel ki nga xam ne mooy Amadou Samba Kane muy DG de la loterie nationale sénégalaise. ñu ñëw nag euh, wax ak ki nga xam ne moom mooy jockey bi nga xam ne mooy Cheikh Sall Cheikh Sall yow yaa waroon Rayane Rayane yow yaa ka waroon nga raw ci euh, fas woowu nga xam ne mooy rayaan Cheikh tey naka nga rawante ak fas wi nga xam ne mooy rayaan ndax première journée bi yow waroo ko woon tey nga war ko raw premier. auzu billaahi mina seytaani rajiim gannaaw bu ma sante yàlla di sant sama ñaari waajur di julli si yeneen bi lii nag dama sant yàlla ndax maa ngi nii bu njëkkee daw si man maa ko waroon man maa si raw te ji maa si rawaat damay delluwaat di sant yàlla. Ah. non lépp père Diéré la at Ali at Met Zid Diagne. ak euh, man daal xaw ma instant bi sama xol dafa fees xaw ma la laa war a wax. yow yow fan nga dëkk. maa ngi dëkk Kébémer. yow ñaataat nga am. maa ngi am 17 ans maa ngi nuyu waa Kébémer yëpp. waaw kañ nga commencé war fas. maa ngi commencé année bi bëti baaw rawee grand prix chef de l' état bi. Ah. moom laa moom laa mbaaw. Ah. ñu ñëw ane bi si topp si laa waree bi mooy sama ñaareelu année. Ah, waaw ma am si ñaar première maa ngi koy sant yàlla. ñaataat nga am. maa am 17 ans. 17 ans waaw. kooku mooy xale bi nga xam ne mooy Cheikh Sall. raw ci poulain de deux ans boobu nga xam ne mooy Rayane euh, Rayane bokk écurie la Saint-Louisienne bu Ale Diagne Ale nag nekk rakk ci maître Souleymane Diagne Ale nekk rakk ci maître Souleymane Diagne waaw euh, gis nga ko ñoo ngi waajal li nga xam ne moomooy ñetteelu course bi ñetteelu course bi nag mi ngi xewee fii nga xam ne mooy hippodrome njaw ma ko du jóg fii ci Thiès waaye dama gi gis ay ndaw yoo xam ne dañoo sóobu di xalaat lépp loo xam ne day jëmale course kanam maa ngi jàkkaarloo ki nga xam ne mooy Papis ñaa di ki nga xam ne mooy organiser Grand Prix de la Renaissance africaine mu yaatal ko euh, ren xam naa ne mi ngi ci wàccaay waaye tey course groupe 1 bi rek lay xaar Papis maa ngi lay nuyu vous êtes en direct de la 2STV. Euh, maa ngi lay fay Diallo di nuyu téléspectateurs yëpp. waaw Papis euh, naka nga jàngatee li nga xam ne mooy ñeenteelu bëccëg bu comité national de gestion ñu jagleel ko Amadou Samba Kane directeur général de la LONASE. waaw xanaa di féliciter CNG encore une fois pour organisation bu rafet bi nga xamante ne mi ngi koy def euh, en l'occurrence Bibo Chérif si bi nga xamante ne moom mooy vice-président chargé de l'organisation. gis nañ ne jeunes yi vraiment ñu ngi apporter du di liggéey liggéey bu rafet également. di remercier également euh, la LONASE ndax euh, ñoom vraiment suñu ay partenaires stratégiques lañ chaque année ñuy organiser ak ñoom grand prix bu extraordinaire donc ñuy ñaan yàlla rek euh, ñu dugg si si jàmm incha allah mu jeex si jàmm. naka nga jàngatee tey li nga xam ne mooy groupe groupe ñoom daaw. ñi nga xam ne ñooy groupe 3 bi ñoo ko raw aja euh, ñoo ko daw ajaa Kole Fall bokk sa écurie raw ko ren nag euh, groupe 1 bi ñoo koy daw muy les crack adulte mu nekk rawante boo xam ne rawante bu rëy a rëy la tey ban jàngat ngay def ci rawante groupe 1 bi ndax keroog dimanche gis nga di nga xam ne noonu la ñu yegsee ci tableau bi. waa effectivement xam nga groupe 1 moom course de niveau la donc fas yi boo xoolee daanaka ñoom ñëpp euh, ñoo yem parce que caaxaan du la yóbbu si niveau boobu ñoom ñëpp ils ont eu à faire Euh, résultat loolu moo leen yóbbu si niveau boobu noonu donc tey xam naa ne daal course bu disputé lay doon li si am solo daal mooy ñaan yàlla rek mu may ñu si ndam. ñoo ngi fii ak Khady Fall na moom doomu dut Thioune bu Tëngéej la Khady Fall na ku bëgg rawante fas la tey nga ñëw fii ci bës bi muy ñeenteelu bëccëg bi ana yëg-yëg bi nga xam ne am nga ko yaa ngi en direct ak euh, la 2STV. tubaarkàlla macha allah sant yàlla lu ñu Seydina Mohamed. sant nag ñaar di gërëm di sant wax dëgg yàlla di sant Cheikh Ndiaye mi xam ne mooy suñu président di sant waa course bi yëpp macha allah di sant nag waa 2STV ndax yéen toujours dimanche jot ñu nag yéen da ngeen di liggéey liggéey bu rafet nag liggéey bu ñu mucc ayib tubaarkàlla macha allah ñu di leen ñaanal rek ngeen yàgg seen télé yàgg naat yàlla may leen fan gudd ak kattan goo leen ko defee ndax lii dafa neex course dafa neex bala ngaa xam ne dafa neex nga judd ci man dama ci judd maam yéeli cuun mooy sama maam allah juddu cuun mooy sama baay sama maam moo jëkk raw grand prix Louga ba mu ko rawee daf ci jënd juróom-ñetti nag fay ci ki koy rub mu jëm tëggee nga xam ne kon loolu yàgg na ba mu mën juddoogu ma man su ma masaana jooy su ma saana jooy dañ may dugal ci keesu fas gi ma doog a noppi ma sëy ci nag tubaarkàlla macha allah xam nga mbuub mooy sama jëkkër tubaarkàlla vétérinaire bi macha allah yal na nu yàlla fal cat yàlla ma ñu fekkee di tal ko at yu bare bare bare bare yàlla defal leen jàmm te yokku leen waaw euh, euh, euh, ñoo ngi fii ci hippodrome Ndiaw Macodou Diop maa ngi seen ki nga xam ne mooy madame Nia Adja Thiou Diop euh, te ku ma di xam ku mën a def lu baax maa ngi seen Adja Kolle Fall maa ngi seen ki nga xam ne mooy madame Bawo waaw maa ngi seen madame Bawo maa ngi seen madame Si maa ngi seen nag ki nga xam ne moom mooy jockey jockey bu mag bi raw grand prix chef de l'État ay yooni yoon raw na ko juróomi yoon. muy ki nga xam ne mooy Mor Sina Seck Mor na nga def maa ngi ley nuyu. maa ngi sant yàlla bu wér tey moom ñëw naa ci course bi wax dëgg ndax rawante ba ma déggee partant naaru góor yi rek sama xol dafa sedd guy ndax gën na fi am lu waxante dëgg rek ñun course rek suñ bëgg-bëgg bu ngeen ñu si gisul rek am na lu tax ñëwuñu ndax ñun ku ñu xam ci course nga ñu ku ñu bëgg ci course nga ñu bëggee. te palmarès bu nekk yàlla dogal na ñun am nañ ko ci course. waaw ñaata yoon nga raw grand prix chef de l' état ndax defe naa en 2013 mi nga rawee ci euh, Daaru Salaam nga dem retraite. waaw loolu dëgg la ba ma rawee ci Daaru Salaam laa dem retraite booba nag retraite jot na ndax ku commencé ay 1960 ay 61 soo demee ba lan 2013 wax dëgg yàlla am wàcc jot na booba tamit bu ñu ma retraitul ne damay bàyyi. waaw lan nga gisee course yi. course yi moom fi toll moom li ma ci gën a neex rek ñu ngi ci avancement. wax dëgg yàlla benn benn dafa rek laa ci gis euh, dëkk benn bi nga xam ne mooy daw rek Thiès rek bañ a bañ a déplacé rek loolu rek moomu ci jaaxal course dafa war a déplacé ndax Sénégal lañ wax ñëpp bokk ci course yi léeg-léeg ñu dem ba Mbacké dem ba Louga dem ba Daara dem ba Jolof loolu man loolu laa xamoon ci course ah léegi nag nañ def yeneen pexe ba course yi déplacé ah. yéen yéen waa waa waa waa Mbacké yéen a ngi waajal seen journée. ñoo ngi la waajal suñu journée war vraiment course dafa neex mooy pomme d'armée benn benn boobu dàqu ko ci ñun duñ seetaan làmb duñ seetaan football course la lañ xam moom kay dama bëgg ñu fi ne yàlla jàppale leen ñu jàppale xele yi sooke yi dimbale leen teg leen ci yoon ñi xam ni ñu rawantee ñu wax leen ko nag. jërëjëf euh, jërëjëf kooku mooy Mor Sina Seck. Euh, waaw ki nga xam ne moom moon waaw baax na euh, euh, waaw Daba ñoo ngi waajal li nga xam ne moom mooy ñetteelu course bi ñetteelu course bi nag euh, muy groupe 3 bi groupe 3 bi groupe 3 bi ñooy daw li nga xam ne moom mooy ñetteelu course bi ñu nekk 14 partants war a daw distance su 2200 mètres waaw dégg ngeen euh, animateurs yi maa ngi taxaw ki nga xam ne mooy commissaire général. chargé des courses hippiques muy Ousseynou Boy Ousseynou maa ngi lay nuyu. maa ngi lay sant Diallo. waaw dawal nañu euh, première course dawal deuxième course euh, ana naka nga gisee jockey yi ak tenue bi nga xam ne moom nga bëgg ci moom ak discipline bi nga xam ne moom ngay woote ci ñoom. merci Diallo dawal nañu première course dawal deuxième course vraiment jockey yi comporté wu nañu normalement. amuñu benn problème ku nekk dawal na sa ligne ku nekk dawal na sa wërsëg amul dara daw teg nañ ko ci yoon ak ci fair play bu wóor kontaan ñoom trop di ñaan nag ñu ne noonu ba ko ciy jeex. Euh, euh, li li nga xam ne moom nga bëggul gis euh, ci course yi man nga ko wax pour nit ñi mën koo xam. waaw course xam nga ne course lu am principal bi mooy la piste man daal su ma sañoon bu kenn jaar ci piste bi parce que piste bi fa la fas yi jaar. te bu ñu fa sa jaaree nit bu fa jaaree mun naa am télescopage te lool du baax man daal su ma sañoon la piste reste dégagée tout au long de la manifestation. waaw kooku mooy euh, commissaire général sarge des courses euh, muy ki nga xam ne moom mooy Ousseynou Boy lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu course moom moom moo ko géré euh, ñu nekk fii ak këwél yi mu yor li nga xam ne mooy xalam gi fu ñu dem moom anime li nga xam ne mooy xalam gi muy kéwél euh, di def animation bu am solo ñu déglu tuuti xalam. voilà monsieur Diop monsieur Rassoul Diop yaa ngi fii ci hippodrome Ndiaw Macodou Diop bu Thiès. ci bés bi nga xam ne bii mooy mooy bésu loterie nationale sénégalaise ban déclaration ngay def à l'endroit des populations. waaw jockey à cheval jockey à cheval pour la quatrième course gis nga ñi nga xam ne ñooy waajal troisième course bi moom mooy groupe 3 bi ñu nekk 14 partants war a daw distance su mu nekk course boo xam ne course bu rëy rëy la. ndax xam nga ki nga xam ne mooy président Cheikh bu Iba Collé Bao moo leen raw journée bi nga xam ne moom lañu génn waaye am na gan yu set si am na gan yu set si tey fi nga xam ne moom mooy course bi numéro 4 bi may gis nii mooy maam ñoxoor jockey bi ko war moom mooy xale boobu nga xam ne mooy Mohamed Jaxa moom Mohamed Gadiaga maa ngi seen numéro 13 bi numéro 13 bi mooy Fils Alhamdu Salif Kobar moo ko war numéro 3 bi moom mooy Borom Baxdaat Ousmane Ka moo ko war waaw ki nga xam ne mooy génn mooy numéro 8 bi muy Barakatu Pape Djibi Diop moo ko war numéro 1 bi di Tempête Bàcci Diop moo ko war numéro 14 bi di Awa Bakary Mohamed Sissoko moo ko war waaye numéro 10 bi di Mami Ngone Mbay Jonn moo ko war ki nga xam ne mooy Mami Ngone Mbay Jonn moo ko war ki nga xam ne moom mooy numéro numéro 2 bi di Masacc wax la Masacc wax la Koso mbakke moo ko war ki nga xam ne waaw waaw fas wi dafa daaneel ki nga xam ne mooy Koso numéro 12 bi moom mooy Rasoul Njime Ngak moo ko war Euh, ki nga xam ne mooy numéro 6 bi mooy Willy Junior Ngañ Dieng moo ko war numéro 5 bi di Racine Alassane Seck moo war ki nga xam ne mooy Racine waaye numéro 9 bi moom mooy Amina Amina xale bi ko war mooy Fallou Diop Fallou Diop moo ko war waaye ki nga xam ne mooy numéro 7 bi di président Cheikh moo leen raw journée bi nga xam ne moom la ñu génn. fii ci hippodrome ma ko Diop waaw fas yaa ngi ci rond de bi fas yaa ngi ci rond de présentation bi ñu nekk 14 partants war a daw di sansu ñu war a daw di sansu 2200 ñu war a daw distance su 2200 mètres. waaw muy huitième édition bu Amadou Samba Kane directeur général de la LONASE muy vingt-huitième édition bu Grand Prix de la LONASE la loterie nationale sénégalaise ñuy ñuy gërëm ñuy gërëm di nuyu ki nga xam ne moom mooy président Cheikh Niang ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax le président du CNG waaye di nuyu nag sama soxna Ndeye Maymouna Mboup nekk fële ca Tëngéej di nuyu Mouhamed Diallo di nuyu ki nga xam ne mooy Abbas Diop di sama doom di nuyu Serigne Saliou Diallo di wax ne ñoo ngi fii ci hippodrome hippodrome ko du Diop nekk fii ci Thiès. ñu ngi fii ci hippodrome ko du Diop nekk fii ci Thiès. mu nekk rawante boo xam ne rawante bu rëy a rëy la ñu ñu ñu jublu nag ci li nga xam ne mooy présentation présentation li nga xam ne moom mooy groupe 3 mu nekk rawante bu rëy fii ci hippodrome njaw ma Koddu du maa ngi sama goro sama rakk di Mara Mbaye Mara naka nga jàngate li nga xam ne mooy. Euh, tey rawante bi nga xam ne rawante bi groupe 3 tey sama yaram dafa daw mais Diallo dama lay ñaanal gudd fan ak wér ci barke Seydina Mohamed borom barrière or ba ndax yow Amadou Diallo daa am loo jàngal xale yi mooy ramper leen mooy décentraliser leen mooy respecter leen tubarkalla macha allah nee naa ko tey jii fukki naaru góor yee juróomi rek ja yow Amadou Diallo jar na dëkk bi 25000 ndax diggante macha allah ak ak ak ak ak ak façon nga xamante ni tubarkalla macha allah mooy mooy mooy général Baara waaye ak masoor rawante yu rëy la waaye Diallo maa ngi lay ñaanal 2S nga dund ba yor sa télé bopp. jërëjëf ñoo ngi ci ñetteelu course bi numéro un Tempête propriétaire Ousmane Ndiaye jockey Bathie Diop corde numéro 4. numéro 2 Massathié Waxla propriétaire Ibrahima Ndiaye jockey Kosombake corde numéro 2. numéro 3 Borom Bagdad propriétaire Ibrahima Ndiaye jockey Ousmane Ka corde numéro numéro 4 Mam Niokhar propriétaire Abdoulaye Ndoye jockey Mohamed Gadiaga corde numéro numéro 5 Racine propriétaire Mansour Diong jockey Mbaye John corde numéro 11 numéro 9 Willy Junior propriétaire Cheikh Mbacke Bao jockey Nganjien corde numéro numéro 7 président Cheikh propriétaire Ibakole Bao jockey Sidi Sow corde numéro 5 numéro 8 Barakatou propriétaire maître Moussa Mbaké jockey Pape Djibi Diop corde numéro 1 numéro 9 Amina propriétaire Pape Amadou Seck jockey Fallou Diop corde numéro 9 numéro 10 Mamingone propriétaire Cheikh Mbaye jockey Joké Mbaye Dione corde numéro 10 numéro 11 Darou Minam propriétaire Omar Bao Junior Joké Mbaye Diène Diallo corde numéro 4 numéro 12 Rasoul propriétaire Aliou Ley Joké Ñimbe Gat corde numéro 6 numéro 10 13 Fils Alhamdou propriétaire Mbaye Diène Mbaye Salif Kobar corde numéro 7 numéro 14 Awa Bakari propriétaire Khar Diouf Joké Mohamed Sissoko corde numéro 14 partants pour une distance de 2200 mètres que le meilleur gagne dans le fair play et dans un esprit chevaleresque. waaw 12 partants la ñu 14 partants la ñu war a daw distance su 2200 mètres mu nekk course boo xam ne course bu ubbeeku la. course bu ubbeeku la ci muy groupe 3 bi waaw Bruno Bruno tey course bi course bu rëy rëy la Bruno Papi Dieye tey gis ngeen course bi nekk na course bu rëy rëy ñu nekk na 14 partants war a daw distance su 2200 mètres waaye ñoo ngi gërëm ñi nga xam ne ñooy service d'ordre bi bu ma gisee soxna yi nga xam ne suñuy jarbaat lañ. ñu nekk fii di assurer li nga xam ne mooy sécurité bi da ngay xam ne daal ñi gàcce ngaalaama yéen yéen ay patriote ngeen di liggéeyal seenum réew muy Sénégal mu nekk lu am solo boo xoolee sapeur pompier yi aussi ñi ngi muyee le maillot pour fexe képp koo xam ne ñëw nga fi rek booy ñibbi nga ñibbi ci jàmm kon gàcce ngaalaama la sécurité sénégalaise ñu ngi def liggéey bu am solo ndax bu nit ñi nelaw ñoom ñu ngi ci terrain bi pour fexe noflaay jàmm kon jàmm rek lañu ñu war a ñaan fi nga xam ne mooy réewum Sénégal di wax ne nag groupe 3 bi ñooy daw ñetteelu course bi waaye bu ñu dawee ba terre groupe 1 bi ñoom ñooy daw li nga xam ne grand prix DG de la LONASE muy Amadou Samba mu nekk nag huitième édition ndax 2012 lañ ko jëkk a dawalal li nga xam ne mooy course dinañ ñëw nag bu ci kanamee ci palmarèsu grand prix bi nga xam ne mooy grand prix Amadou Samba Kane commencé ko 2012 ba 2000 2017 ba 2018 wax leen palmarèsu grand prix bi nga xam ne mooy grand prix DG de la LONASE Amadou Samba Kane ren muy huitième édition mu nekk journée boo xam ne journée bu am solo la journée bu am solo la Bruno tey bés bi rëy na boo xoolee foo sànni mbattu mu takk foo sànni mbattu mu tàkk waaw fas yaa ngi ci starting block yi 14 partants la ñu dimanche bi ñu génn fas yu leen raw moom mooy président Cheikh bu Ibakole Bawo ndax day confirmer ne dafa bokk ci favori yi xamaguñu faaw ñu daw ba ki nga xam ne mu raw na leen fii tamit moom mooy Wili Junior ñoom ñaar ñëpp ñu bokk écurie Lamba Faar bu Omar Bawo Junior tey ni ma gisee Wily Junior indi na état parfait waaw indi na état parfait ki nga xam ne mooy sama frère di Souleymane Gaye nee na ma jàllo tey waaw jóg nañu génn nañ ci starting block yi jàkkaarloog ñun drapeau bu vert bi validé ne ko Mami Ngone moo génn ci kanam Mami Ngone moo génn ci kanam Mami Ngone moo génn ci kanam Mami Ngone moo génn ci kanam Mamy Ngoné moo génn ci kanam ki nga xam ne moo ko sëkkatal ki nga xam ne moo ko sëkkatal waaw Mamy Ngoné Mamy Ngoné borom Baxdaat mami ngoone borom Baxdaat Amina Mamy Ngoné borom Baxdaat Amina waaw Wili tey teel naa ñëw Wili Junior teel naa ñëw Wili Junior raw na leen fii raw na leen ji Junior raw na leen waaw am nañu 500 mètres am nañu 500 mètres Mami Ngoné mi jiitu woon moo nekk en troisième position ndax euh, distance la boo xam ne kenn du ko marchandé 2200 mètres la course bi rëy na tey course bi rëy na am nañu 800 mètres. am nañu 800 mètres léegi ñu boucler li nga xam ne mooy 1000 mètres yi mu dese leen 1200 mètres borom Bagdad Willy Junior borom Bagdad Racine Mami Ngone dig na ci biir groupe bi Mami Ngone dig na ci biir groupe bi Mami Ngone dig ci biir groupe bi waaye Willy Junior moo nekk ci kanam wala Willy Junior Willy moo nekk ci kanam. numéro 9 numéro 3 borom Baxdaat numéro 3 borom Baxdaat Amina mi ngi daw ci aras bi mooy borom casaga rouge violet bi waaw ami Amina mi ngi daw borom Baxdaat def na avancement dawal nañu Racine dawal nañu Racine mu ñëw seen kaw mooy xacc bu weex bi xacc bu weex bi mooy rasin Wili Junior a nekk ci kanam ba tey C'est Willy Junior qui mène le peloton. waa dawal nañu Racine Racine génn na dawal nañu Racine jox na leen ñaari longueur Racine jox na leen ñaari longueur jox na leen ñetti longueur Taba tey Racine Racine tey jox na leen cinq longueur waaw Mami Ngoné dawalaat nañ ko ci tournal bi dawal nañu Mami Ngoné ci tournal bi waaye ras Racine moo nekk ci kanam. Racine moo nekk ci kanam li mu joxe jaadootul xale bi ko war mooy Ngagne Dieng Racine li mu joxe jaaduwul Racine li mu joxe jaaduwul deuxième position Mami Ngoné trois Wiri Junior moo nekk en troisième position Racine tey li mu leen jox bëri na li mu joxe bëri na Racine li mu joxe bëri na premier numéro 5 Racine premier numéro 5 deuxième numéro 10 Mamy Ngoné troisième numéro 7 président Cheikh numéro 7 président Cheikh troisième numéro 7 président Cheikh première Racine Racine moo raw Racine moo raw mu leer président Cheikh Racine moo raw Racine moo raw tey li nga xam ne mooy groupe 3 bi Racine Mansour Diong moo ko moom. ki nga xam ne moo war mooy Alassane Seck mu ne mu rawante course bu rëy tey Racine moo raw tey fii nga xam ne mooy hippodrome hippodrome Ndiaw Macodou Diop muy groupe 3 bi groupe nag amagul ilimaan ndax président Cheikh moo leen raw dimanche bu yi passé dimanche bële passé ki nga xam ne mooy Willy Junior moo leen raw tey nag Racine moo leen raw joge bi ko war mooy Alassane Seck muy numéro 5 bi numéro 5 Racine mi nga jóge Yoof waaw waaw ñoo ngeeg joke Racine ñoo ngeeg jóge Racine muy Alassane Seck Alassane ñu ngeeg Alassane Seck muy muy bi nga xam ne moo war Racine bu Mansour Diong moo war Racine bu Mansour jong waaw xacc bi moo moo jël premier Alassane ñu ah, ñu yaa ngi en direct ak euh, la 2STV tey nak nga rawante ak fas yi nga xam ne mooy Racine. waaw maa ngi sant yàlla père maa ngi nuyu samay ñaari waajur di nuyu gars yi yëpp képp ku nekk ci kursi bàyyi lay nuyu man nag maay ak Seck waaw xam naa xëy na damaa gëj a rek moo tax xaw ma fàtte waaye maa ngi nuy samay ñaari waajur di nuyu waa Gambie di nuyu waa nuyu waa Mbour xoolal sama gars yëpp ñu may seetal maa di nuyu. non rawante bi moom tay damaa toog jaabar rek tay moom dama ko toog ba mu ñor rek daal koo yàq waaw. kooku mooy kooku mooy kooku mooy Alassane dafa duggoon ci saako bi nag gëj naa raw waaye tey gis nga dafa toog déglu leen bi ñuy am 800 mètres boobu mi ngi woon en sixième septième position waaye bi ñu amee bi ñu amee 2000 mètres gis nga ko bi ñu amee 1800 mètres mu ñëw seen kaw mooy Racine. bu Mansour Diong ma na rasin moo raw tey ki nga xam ne mooy hippodrome ñaw ma ko du Diop muy groupe 3 bi ñu nekk waaw ñu nekk course boo xam ne course bu neex la ndax groupe 3 bi amul favori chaque jour rek groupe 3 bi mu am surprise ndax président Cheikh moo leen raw dimanche bi passé euh, tey ki nga xam ne moom moo yor lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu infrastructure ñu ngi ki nga xam ne mooy Saliou Ba Saliou Ba moo yor lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu infrastructure Saliou piste bi nooy na waaye liy xaw a def defoo mooy poussière bi. waaw poussière bi mooy suuf si fële moo dee parce que place su ndox la nawet jotee ndox mi yëpp foofu lay taaje boo arrosé loo arrosé arrosé. bu naaj bi ñëwee rek boo wawee poussière day daal di am mais ba léegi yaa ngi xool ne trace ndox maa ngi ci. waaw piste bi moom ku xool xam ne nooy na joore na waaye poussière bi rek moo ko xaw a def defoo ndax bu ñuy def reportage bi dañuy am problème ndax poussière bi nga xam ne mooy jóg pour mën a xam ban fas moo jiitu ki nga xam ne moom mooy meeru euh, euh, euh, Thiès Ouest nee na am na projet yoo xam ne ñi koy xalaat waaye loolu war naa gaaw ndax poussière bi baaxul ci sante fas waaw ñoo ngi waaj fi mu pour def benn forage fii ci course bi. Euh, suñ partenaires yi rek la ñuy xaar ak euh, ñu war a régler problème bi mu daal di féete boor benn forage boo xam ne bu ko xasee ba am moom bu soob yàlla problème bu poussière moom jeex na ci kàttanu yàlla. waaw kii mu nga xam ne moom laa doon waxal moom mooy Saliou Ba mu yor loo xam ne dafa jëm ci infrastructure ki nga xam ne nag moo ko jàngal wàllu piste mooy Cheikh Tidiane si Cheikh Tidiane Touré moo moo ko jàngal wàllu piste yàlla dogal mu génn àdduna daaw moog Souleymane Dem ki kii yoroon li nga xam ne mooy balance bi muy pesage ñu dem tuuti ñu kii ci animation li nga xam ne moom mooy euh, bu cees bi fanfare bu cees bi ñu ngi def animation waaw gis nga ko fanfare bi def na animation bu am solo Daba Daba waaw euh, résultat provisoire yi la ñuy xaar waaw euh, waaw ñu joxe nag li nga xam ne moom mooy résultat provisoire troisième course ordre d'arrivée bi la ñuy joxe concernant le groupe 3 14 partants pour une distance de 2200 mètres ñu joxe résultat yi nga xam ne mooy résultat provisoire yi muy ordre d'arrivée bi commissaire général Ousseynou Boy moo ko war a joxe ñu ngi fii ak euh, ki nga xam ne mooy secrétaire général secrétaire général euh, muy monsieur Mamadou Gueye muy secrétaire général de la LONASE monsieur Gueye maa ngi lay bu baax waaw dama kontaan rek bégte bu bari waaw parce sama directeur général bi toog na euh, xamal nañu ne la liggéey ci gannaaw mobiliser ngir bés bi am na ci mbégte kon nag ñun amuñu lu dul kontaan ci rek ci liggéey bu rafet bu ñu def euh, di ci remercier wàllu LONASE yëpp nga xam ne ñoom ñëpp dañ leen a woo mobiliser leen ñëpp dajee Thiès euh, ngir màggal bés bi kon nag ñun dañu sant yàlla xam ne daal dañ ci doon wut. objectif bañ ci daan ut euh, maanaam matale nañ ko. waaw. mooy ñëpp ñëpp association muy AFLO euh, comité APR LONASE euh, mouvement dooleel Sambakan bi nekk Pikine soxna yëpp a mobilisé wu ku nekk ak sa façon tenue bi nga sol pour mu wane sa mobilisation ak sa différence. waaw ñoom ñëpp dajale nañ fi ngir euh, bés bi euh, may xamal ne bés bu mag la parce que dafay am cachet spécial bu ñuy joxe ci nañuy exploiter PMU waaw bëgg a dawal def ay prise de paris ci PMU local waaw loolu nag euh, ñëpp ci war a jàpp parce que day tax koom-koom bañ daan jox tubaab yi dellu si fii ci biir réew bi waaw looloo tax mu spécial mu nekk journée boo xam ne ñëpp ci war a jàpp CNG course hippique nga xam ne seen président moo toog nii ak suñu président Amadou Samba Kane lëkkaloo pour mën a am réussite ci événement boobu. jërëjëf euh, kooku mooy kooku mooy euh, euh, DG. comité d'entreprise fondation. waaw ñu ñu ñëw jël ki nga xam ne moom mooy madame Ka yor fondation comité d'entreprise bi madame Ka. madame kan ñoo ngi lay nuyu euh, moom moo jiite euh, li nga xam ne mooy comité d'entreprise bi yor lép loo xam ne dafa jëm ci wàllu action sociale tey da ngeen a UIC comité national de gestion des courses hippiques ci bés bu rey bi ñu tuddee la loterie national sénégalaise tey lan ngeen di yëg tey ci bés bi nga xam ne moom leen leen jagleel. merci beaucoup monsieur le journaliste nous rendons grâce à Dieu parce que actuellement au niveau de la loterie nationale Nous avons enregistré des acquis extraordinaires, ce qui nous a permis de mettre en place euh, la Fondation Loterie nationale sénégalaise. Cette structure va nous permettre davantage de concrétiser la vision du chef de l'État et d'appuyer la politique de son gouvernement dirigé par son Premier ministre, Mohamed Boun Abdallah Dionne. Le deuxième point, c'est que nous avons lancé un comité d'entreprise dénommé comité d'entreprise pour euh, l'Alliance pour la République. C'est euh, euh, Monsieur Président la République, le chef de le réélire au soir du 24 février, donc euh, nous y sommes. Nous avons à la place du souvenir africain, à avec plus de 2000 membres. Et notre parrain est le, le, président du conseil de fondation de la LONAS, directeur général de la Loterie nationale sénégalaise, M. Amadou Sambakan. Donc, euh, le ministre d'État Mbaye a représenté le chef de l'État à ce grand événement qui a enregistré plus de 2000 membres. Donc euh, les adhérents étaient de partout, euh, du sud du pays,

mooy action sociale Jëleen jëleen waaw xaala euh, ñoo ngi waajal li nga xam ne li nga xam ne mooy groupe muy grand prix monsieur Amadou Samba Kane moom la ñuy waajal léegi muy course bi nga xam ne mooy course les cracks adultes waaw les cracks adultes. mu nekk course boo xam ne course bu rëy a rëy la mu am hippodrome Ndiaw du Diop nekk fii ci Thiès naka nga gisee rawante bi nga xam ne mooy groupe 1 bi muy grand prix bi daaw Adja Kolle Fall bu Idrissa Niang moo ko raw waaye ren huitième édition bi xamaguñu groupe 1 bi kan moo koy raw. waxoon dëgg Amadou Diallo xam nga groupe 1 bi ren daliñ ko dafa def deux sorties nekk deux sorties premier. waaye xam nga tey nag grand prix Lonase la waaye xam nga daaw ki nga xam ne moo ko raw mooy Adja Kole Fall kan mooy Adja Kole Fall sëtu Daba Kebe kan mooy Adja Kole Fall doomu Aminta Cuuj kan mooy Adja Kole Fall nga xam ne grand prix Chevetal 2016 moo jël deuxième kooku nag mooy Adja Kole waaye xam nga ren dañoo ñëw ci grand prix bi nga xamante si nii mooy grand prix. mooy grand prix bi nga xamante si ni mooy grand prix loterie nationale nga xam ne mooy suñu partenaire mooy suñu partenaire fu ñu dem rek ñu nag waa LONASE la fu ñu fu ñuy dawalee rek LONASE mooy sponsor principal après nag bu ñu doog beneen sponsor ñu teg ko ci waaye waa Elcom Amos waa Elcom waa waa Diamaguène Events ñu ngi leen di nuyu waa Diamaguène Events ñu ngi leen di nuyu madame Thiam ñoo ngi koy nuyu waaye xam nga dama ni tey grand prix bi doon na loo xamante si nii koo prononcé kay nga juum ndax daliñ koor dafa def deux sorties def deux victoires macha allah tey ñëw na ki nga xam ne moom mooy daal xulóos dimanche passé dañ ko dawal euh, vitesse mais ragal naa nag tey dañ ko téye filaas parce que moom fasu filaas a tàmm Medina dimanche passé dañ koo téye filaas moom mi ngi jóge écurie cuuc ci Sangalkam waaye xam nga tey dañu indi Nasrullah ak Faydu mu ne sukk su dara rentré te ku xam na ni Faydu chauffeur de valeur la ndax Faydu Rodo Open jël deuxième grand prix de l'État première année bi nga xam ne fa lañ demee Fatick ki nga xam ne mooy général Baar ba moom moo Mamadou Diallo Diop kooku moo jógee écurie Mbar kooku moo jógee écurie Mbar Géej def sa rentrée nga xamante si ni lay métti ci moom rek mooy bañ koo moom ki nga xamante si ni mooy Doumayeen ah kooku tamit fas la boo xamante si ni mën na mëq mën a siim mën na mëq mën a siim bu ko neexee toog su ko neexee dem bu nga jógee Lamba Faar ànd ak doomu ndeyam Miroir ah Miroir Pape Assane si moo ko moom Miroir gis na ne tour la tey rek ko sub dina ubbeeku moom ndax tey lièvre yi bu ñu demee kanam fas du leen tuuli dañuy toog jàpp kon muy waar dina am sens nga xam ne mooy bërigut ñoo bokk équipe bu équipe bu nu jógee muy écurie Lamba Fall bu Amar Bawa Junior moom tamit deuxième tour lay ñëw ki nga xam ne mooy Alfaat moom doomu af ak ëllë waaye mu ngi jógee écurie Rewmi bu mu rëbële Sakar Thiam moom ak Buraax ak ki nga xamante ne mooy tesul yaakaar ak Major waaye Major gis na ni bi ñu nekkee xale moom ak Dalinkoor moo ñàkk a doon Dalinkoor ci fii la ko rawee woon le premier journée mu daje Major raw ko Dalinkoor di deuxième. booba léegi la ñuy rawante waaye li nga xam ne moom la te raw moo ëpp waaye macha allah ñëw na tey tey nga xam moo raw grand prix chef de l'état Amadou Diallo. waaw euh, Papa Diadia xam ngeen ne ñeenteelu course bi moom mooy groupe 1 bi mooy grand prix bi nga xam ne moom lañ jagleel Amadou Samba Kane DG de la LONASE groupe 1 bi fas yéene ko daw. groupe 1 bi nag nekk nañu 15 partants war a daw distance su 2200 mètres nekk nañ 15 partants war a daw distance su 2200 mètres. Euh, waaw ñu ngi def remise de euh, remise de prix muy course bi nga xam ne mooy groupe trois bi euh, groupe 3 bi ñoo daw ba teer madame Ka ak ki nga xam ne mooy Babacar Ndiaye di Dage Babacar Ndiaye mooy mooy Dage au niveau de la Lonase ak madame Ka ñoom ñooy joxe li nga xam ne moom mooy prix bi nga xam ne moom lañ jagleel groupe 3 ci bés bu nga xam ne moom la ñu jagleel. la loterie nationale sénégalaise Babacar nag doomu Thiès la waaw tey fi nga xam ne mooy xolu Kajoor fii la ñëw waaw euh, waaw madame Ka waaw euh, remise euh, jockey bi nga ma jàkkaar lool mooy Mbaye John moo jël deuxième ki nga xam ne mooy Rasoul moo jël premier ci groupe 3 bi mu nekk course bu rëy a rëy muy journée de la loterie nationale sénégalaise 28e édition waaye ci édition bi nga xam ne DG de la LONASE Amadou Samba Kane fekkee na ko bii mooy huitième édition ndax 2012 ba tey waaw euh, ñoo ngi ak euh, monsieur Rasoul Diop waaw. monsieur Rassoul ñu ngi euh, jàkkaarloog moom monsieur Rassoul Diop vous êtes en direct de la première chaîne privée du Sénégal la 2STV nga nuyoo euh, mbokki téléspectateurs yi nga wax importance bi nga xam ne moom la bés bi am ak lan moo tax nga ànd ak DG Amadou Samba ak euh, ki nga xam ne mooy président Macky Sall. bon salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokk Sénégal maa ngi leen di nuyu di leen nuyu yéen waa 2STV. di nuyu sama leader Amadou Samba Kane di nuyu Daaf sama bras di nuyu Chérif Dia sama collègue bon Amadou Samba Kane dafa am lu jafe parce que man maa nekk responsable génération du concret bu cees kilifa yëpp soxla woon ma mais man sama liggéey dama ko teg ci dëggu parce que dañoo adressé dara policiers yi mooy policier du wax dëgg te loolu dafay jóg am na koo fi dindi muy Amadou Samba damay tànn kan laa war a àndal ñëpp ñëw di ma seet ma bañ am fu ma bëgg a teg sama tànk di xool ban façon nit laa bëgg a gis gis ki nit ku am fulla ku am fayda ku ñeme dëgg ku ñeme liggéey bëgg président de la république ñeme génne ay moyens parce que boo xoolee tey li mu mobilisé fii nga xam ne caaxaan defu ko dafa génne mooy bari te ko ci ko taal bi moom moo réussir décrochement unima APR c'est grâce à lui parrainage yi li mu liggéey cees fii ci parrainage jox ko président amul kenn koo am cees fii wax ji bari na nag mais ki mën ak ki nga loo gisee bés bi nga xam ne moom lañ ko tuddee muy huitième édition bi muy course bu mag bi moom 2012 la première édition bi ñoo ngi 2017. bon dañ ñaan ñaan suñu borom bis bi yàlla def ko mu nekk ay téeméeri at parce que Amadou Samba Kane mérité lu ne ci àddina mérité na lu ne ci àddina lu ne mérité ko ci àddina parce que jomam ak fulaam ak faydaam ak ngoram ak diine gi moo tax yàlla jëmale ko ci wàllu fas ndax ñëpp xam nañ ne fas dafa barkeel ku amul ngor amoo diine mënoo cee nekk. kon suñu borom bu ko xëccee mu nekk ci lépp loo xam ne doomu aadama ñi koy gis ci moom loolu moo nekk kon bis bi dañu ñaan yàlla mu dugal ko yàggal ko mu def ay téeméeraat santaan ci kanam ñu fekkee njariñam incha allah. jërëjëf euh, waaw euh, xam nga tey ñoo ngi waajal li nga xam ne moom mooy euh, groupe bi groupe 1 ñoom ñooy daw li nga xam ne moom mooy grand prix DG amadu Samba Kane muy groupe 1 bi ñu nekk 15 partants war a daw di 100 sous 2200 mètres xam naa tey liñ naan wuré wa dem na këng waxi mag dem nañ dañ taali bàgg war na mbaam waaw euh, dañuy ñëw rek ñu ñu rëkk ndënd yi ñu hymne national bi lañuy waajal hymne national lañuy waajal hymne national bi lañuy waajal hymne national du Sénégal ndax ñi nga xam ne ñoom ñooy crack adulte yi muy groupe 1 ñoom ñooy daw li nga xam ne moom mooy huitième édition grand prix grand prix monsieur Amadou Samba Kane waaw jockey à cheval génn nañu ñu ngi génn nañ ci paddock bi ñëw nañ ci rond de présentation bi ñi ngi waajal nag li nga xam ne mooy hymne national du Sénégal bu ñu paree ñu présenté fas yi ñu dem au départ 15 partants la ñu ki nga xam ne moo ne woon vainqueur Grand Prix Lonase daaw moom mooy Adja Kolle Fall bu Idrissa Niang mu bokk groupe 3 moo ko raw daaw édition ren bi xamaguñu kan moo koy raw waaye nekk course boo xam ne course bu ubbeeku la course bu rëy la ndax Dalingkoor moo raw ñaari course yi nga xam ne moom lañ génn première journée bi jaanee raw daal di ko raw deuxième journée ak troisième journée tey mooy quatrième journée bi muy nag première classique de la saison hippique du Sénégal xamaguñu nag kan nga xam ne moo koy raw xaasa seen ñu déglu li nga xam ne mooy hymne national bi bu ñu paree ñu ñu nag dugg ci li nga xam ne mooy présentation bi. Merci Khaza. Quatrième course réservée au groupe 1. 15 pour une distance de 2200 mètres. Grand Prix de M. Amadou Sambakan, directeur général de la LONAS. Numéro 1, propriétaire Abdou Khadir Jogué Adama Thiam corde numéro 4 numéro 2 Dardas propriétaire Abdou Khadir Mbaye jockey Ousmane Ka corde numéro 6 numéro 3 Faydou propriétaire Idrissa Niang jockey Mohamed Gadiaga corde numéro numéro 4 Medina propriétaire Cheikh Tidiane Sy jockey Momad Gueye corde numéro 7 numéro 5 Nasrullah propriétaire Ndioba Seck jockey Alassane Seck corde numéro numéro Général Bara propriétaire Modou Diané Diop jockey Oumar Sar Diallo corde numéro numéro 7 Doumayène propriétaire Ibako Lebao, jockey Nganguien, corde numéro 1, numéro 8, Miroirs. Propriétaire Ahmed Assansi, jockey Fallou Diop, corde numéro 11, numéro 9, Very Good. Propriétaire Oumar Bao Junior, jockey Ablaï Kassé, corde numéro 15, numéro 10, Joguin Dimengat, corde numéro 8, numéro 11, Major. Propriétaire Mansour Silla, Joguin Ousmane Diouf, corde numéro 12, numéro 12, Bourar. Propriétaire Abdoulaye Dia, jockey Pape Ning, corde numéro 11, numéro 13, Tassoul Yakar. Propriétaire, professeur Sakhir Cham, jockey Saliou Kobar, corde numéro numéro 14 machallah propriétaire Ndiamé Dieye jockey Modou Dieye corde numéro 14 numéro 15 Dalincor propriétaire Ibako Lebao jockey Sidi Sow corde numéro 3 15 partants pour une distance de 2200 mètres que le meilleur gagne dans le fair play et dans un esprit chevaleresque. Cinquième course, groupe 2. Cinquième course, groupe 2. ndeysaan merci waaw ñi nga xam ne ñooy daw ñooy groupe 1 bi groupe 1 nekk nañ 5 partants nekk nañ 15 partants war a daw di 100 sous 2200 mu nekk course boo xam ne course bu rëy la am fii ci hippodrome hippodrome yow ko du Diop fii ci Thiès bu rëy a la Daba léegi ñu xam kan mooy jël li nga xam ne mooy huitième édition muy grand prix bi nga xam ne mooy grand prix de la loterie nationale palmarès grand prix de la LONASE 2012 2018 2012 dimanche 1er janvier hippodrome municipal de Thiès catégorie PTA les poulains de 3 ans vainqueur Diakher propriétaire maître Moussa Mbacké 2013 dimanche 7 avril hippodrome municipal de Thiès réservé à la catégorie des Narougor, vainqueur Mara, propriétaire Modou Diané Diop. 2015, dimanche 15 février, hippodrome municipal de Thiès, catégorie PTA, vainqueur Maha, propriétaire Mahafal. 2016, dimanche 14 février, hippodrome Diaumakodou Diop, Thiès, catégorie PTA, vainqueur Darou Khoudos, propriétaire Abdou Khadr Dimanche 26 février, hippodrome Diaumokodou Diop de Thiès, groupe 3, vainqueur Nélencar, propriétaire Lamine Diop. 2018, dimanche 11 mars 2018, hippodrome Ndiaumokodou Diop Thiès, groupe réservé au groupe 3, vainqueur Adjako Lefal, propriétaire Idrissa Niang. loolu mooy palmarès bi nga xam ne moy palmarès Grand Prix El Hadji Amadou Samba Kane muy DG de la LONASE ndax palmarès dafa nekk lu am solo ndax xam nga 2012 la ñu jëkk dawalal ki nga xam ne mooy maire de Hounaré DG de la LONASE Amadou Samba Kane première édition bi première édition 2012 la woon muy dimanche 1er janvier ci hippodrome Ndiaw ma Koddu Diop fii catégorie poulain de 3 ans yi ñoo ko doon na ndaw ñu nekkoon huit partants doon daw distance 1650 mètres premier Jaxeer propriétaire maître Moussa Mbacké temps 2 minutes 31 secondes jóge Pape Madia Kassé deuxième Sarab propriétaire Moussa Diagne jóge Pape Cheikh Dia troisième Sibigui propriétaire Ibokole Bao jóge Pape Nying quatrième Confiance propriétaire Tons Ndiaye jóge Ousmane Sow en 2013 dimanche 7 avril hippodrome municipal bu cees catégorie naaru góor yi ñoo ko doon daw ñu nekk 15 partants jóg nañu jóg nañu jóg nañu jóg nañu jóg nañu Dalinkoor moo nekk ci kanam xale bi ko war mooy Sidi waaw Dalinkoor moo nekk ci kanam Dalinkoor ak duma Dalinkoor ak duma Dalinkoor ak duma Dallinkoor moo nekk ci kanam jockey bi ko war mooy Sidi Sow Dallinkoor moo nekk ci kanam jockey bi ko mooy Sidi Sow Sidi Sow moo war ki nga xam ne mooy Dallinkoor en deuxième position Doumayeen waaye ñoom ñëpp ñu ngi lunju ñoom ñëpp ñu ngi lunju Dallinkoor jox na leen ñaari longueur waaw a ah, dawal nañu dawal nañu Daaru Xuddoos Faydu Faydu ngi ci groupe bi la Médina ñëw na jege si la Médina ñëw na jege si la Médina ñëw na jege si waaye Dalingkoor moo nekk ci kanam ba tey Dalingkoor joke bi ko war moom mooy Sidi Sow Sidi Sow moo war Dalingkoor léegi ñu boucler li nga xam ne mooy 1000 mètres yi mu dese leen 1200 mètres waaw a nekk ci kanam ba tey Dalingkoor mène le peloton waaw Alfat Alfat ñëw na Alfat ñëw na général Baara ñëw na général Baara ñëw na général Baara Alfat. teel nañu dawal général Baara mu ñëw ci biir général Baara bu Modou Diané Diop ak Alfat waaw général Baara général Baara général Baara Baara Alfat waaw Dalinkoor moo nekk ci kanam ba tey dawal nañu général Baara ci aras bi dawal nañu général Baara ci aras bi. waaye Dalifort nekk ci kanam ba tey dawal nañu macha allah dawal nañu dawal nañu Medina dawal nañu Medina dawal nañu Medina dawal nañu Medina waaw poussière bi rek mooy cat li poussière bi rek mooy cat li kenn gisatul poussière bi rek mooy cat li kenn gisatul ay rajo. waaw waaw waaw waaw xam nga xam nga rabu dëkk bi rabu dëkk bi moo ñëw. jàppale si waa course bi pour bañ benn am loolu moo tax tey pënd bi jóg waaye Dalingkoor a ngi ci kanam Amadou Diallo. waaw Dalingkoor mène le peloton Dalingkoor mène le peloton Dalingkoor premier numéro 15 Dalingkoor deuxième numéro 4 deuxième numéro 4 troisième numéro 11 numéro 4 Medina troisième numéro 11 numéro 11 major troisième numéro 11 major numéro 11 major premier Dalincor driver par Sidi Sow Dalincor remporte le Grand Prix la huitième édition du Grand Prix du Grand Prix du directeur de la LONASE monsieur Amadou Samba Kane Dalincor remporte le Grand Prix Dalincor remporte le grand prix de la loterie nationale sénégalaise. Monsieur Amadou Sambakan. Dalincor est driver par le jockey Sidi Sow. Sidi Sow Sangalkam la dëkk. Dalincor bi mooy trois réalisation moo am ko moo leen raw deuxième journée raw leen troisième journée tey mu raw leen li nga xam ne mooy journée de la LONASE muy Amadou Sambakan maa ngi jàkkaarloog jockey bi nga xam ne mooy Sidi Sow Sidi Kaay Sidi Sidi Kaay Sidi Sow moo jël li nga xam ne mooy grand prix waaw moo jël grand prix bi nga xam ne mooy grand prix de la LONASE Sidi maa ngi lay nuyu tey naka nga rawante ak fas yi nga xam ne mooy dalli père sant yàlla rek sant yàlla coow li bëri woon na trop waaw mais nag ànd ak dal ak tey ak liggéey rek ak gëm yàlla yàlla mooy may ndam fii kenn newu fi yàlla rek a mën fas yi nag champion la dinañ ko teg si dawal ko ba ñëpp xam na ne fas yi dafa mën a daw mais fas yëpp a mën a daw mais nag que le maire gagne liggéey rek liggéey rek la. waaw ah, bi mooy ñetteelu réalisation nga am ko ndax yaa raw deuxième journée raw troisième raw quatrième journée muy journée lona waaw sant yàlla rek lépp liggéey rek jaamu yàlla di ñaan yàlla mu may ñu rek te xam ne yàlla maa ngi sant sama yaay ak sama papa waa Sangalkam yëpp ak ñi ma ñaanal samay sëriñ yëpp maa ngi leen di sant di sant. waaw kooku Sidi moo raw li nga xam ne mooy fas wi nga xam ne mooy dal Dallinkoor bu Iba Kolle Bawo moo raw troisième édition moo raw troisième édition moo raw li nga xam ne mooy grand prix de la loterie nationale sénégalaise. waa naka nga gisee rawante bi tey xaasa Dallinkoor dafa confirmé ne moo toog favori ci li nga xam ne mooy groupe 1 bi. Amadou nous les féliciter avant quoi que ce soit. ci reportage bi ak tamit le direct dama ne loterie national sénégalaise son directeur général monsieur Amadou Samba Kane moo tax bés bi taaroo nii bës bi amee nii doole te encore une fois 2STV daal si jàpp pour le direct donc nous félicitons tous. donc si kaw loolu si li question bi nga ma posé Dalingkoor maa ngi lay wax une chose fas wu ko si topp te amoo fon te amoo vitesse doo ko gagné fas yi dafa boole ñaar muy fond muy vitesse am tamit li nga xam ne bii mooy personnalité. jërëjëf kooku mooy waaw xam naa damay yéeg ci kaw ñu ñag jël li nga ki nga xam ne mooy le DG de la LONASE muy Amadou Samba Kane ndax moom la ñu jagleel li nga xam ne moom mooy grand prix bi amadu Samba Kane la ñu jagleel grand prix bi muy la DG de la LONASE waaw dañuy fexe gisee ki nga xam ne mooy DG de la LONASE muy Amadou Samba Kane moom la ñu tuddee woon li nga xam ne mooy grand prix bi daal ko raw ko rafet rawel bu rafet joke bi ko waroon di Sidi Sow siidi Sow moo war daal mu rawante rawante bu rëy rëy fi nga xam ne mooy hippodrome waaw DG DG sa impression ci li nga xam ne moom mooy journée bi nga xam ne moom lañ la jagleel muy huitième édition bi. ah oui j'ai été satisfait de la mobilisation et surtout du ralliement également de nos camarades qui étaient dans d'autres formations politiques qui ont compris que le bon choix c'est Macky et ils ont choisi donc de nous rejoindre ils l'ont dit ils l'ont manifesté ils l'ont déclaré officiellement Et donc euh, voilà, la course également s'est très bien passée. Donc vraiment, je suis, je suis, je suis un DG complet. Ah, euh, tu, tu es satisfait sur la journée c'est la huitième édition. La première édition était en 2012. Merci, merci. Non, non, non.